deuxième phase bi ci la ñu toll pour tàllal suñu loxo pour laaj ko te mu nekk lu ñu moom nag parce que ay artisans lañu ñu représenté ci réew mi soixante 74 pour cent ci population bi kon tey dafay jaadu suñu defalee tey un marché bu àgg ci 30 milliards jox ñu première phase deuxième phase bi heure bi waroon a fekk ñu koy liggéey jotakuñ ko dafay jaadu ñu réclamer ko ci suñu jiitu réew jaarale ko ci le ministre de l' éducation ak le la régionale nga xam ni moom moo ñu bokk yilif en tout cas ci kàddu yi mooy le président ñu ngi lay envoyé sunu message ci turu bépp terre bu nekk Sénégal donte la nag fii la ñu defee le point de presse mais tey terre yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi parce que man mii di wax ak yow deuxième vice président laa ci mouvement des tailleurs du Sénégal kon tey su ma fi ñëwee jël kàddu dama koy jël ci région Thiès mais dama koy jël ci turu Sénégal yëpp di def appel ci président de la République mu. dimbali ci nu mu gën a gaawee deuxième phase bi mën a dugaat ci loxo tailleur yi ñu mën ko exécuter pour mën a mottali seen ay yéene seen i activité mën a soxaliwaat seen ay entreprise